mais grand li nga tëj da nga rafet. mais grand li nga tëj nga rafet. mais sant kan rek. mais def yaram mu neen rek. dëgg la mais Lac de Guiers Siteu. combat bu neex. waaw. combat jànq. te dañoo wax ci penc ba ba ñëpp dégg leen nga ko war a jëfee. da nga ko war a jëfee. nga ko war a jëfee. tey jii. dër bi lay doon. te combat bu yéeme. loxo doon dugg ci jëfandikoo grand grand li nga li nga sax na lool. waaye Iba yow yow yow laa ko tuddee. merci jërëjëf Iba kan la tudd. merci jërëjëf mais Lac de rek. grand contre petit. dafay wane ne am na fu mu fu mu bëgg a dem. waaw doon portam. Lac de Guiers boo mu confirmé nii. ci VIP la bokk. tey lay a wane boppam ni moom dafay nekk. kan moo kan nga gis ne a dem. nañoo daje. mais à à cinquante pour cent jàpp naa mooy dem. parce que ndox du bàyyi yoonam. le grand Baye Fall. waaw oui. Eh. mais gëj naa dugg sa oto bi dina teewoon. c'est vrai de. mais dina ko ñu daje rek. sa commune Pape Abdou Fall. mu ngi fi mu ngi fi. mu ngi si jàmm mu ngi am jàmm de Guiers. waaw Siteu ah, ah. ba war a mën a bëre Lac de Guiers. lamb amatul léegi lamb ay kii mag kii ndaw ñëpp war a bëri seen ni jël Sa loolu mooy lamb te il est temps booy imposer seen bopp génn mag ñi lamb ji jël lamb ji seen loxo loolu affaire loolu kese si te na wane ni ci booy yi la bokk ci war a yor lamb ji ëllëg ci la eh, nuyu naa la maa ngay fay rek waaw lamb la rek comme ni ko la rek rek bëri ñëpp a war a bëri seen biir rek lamb la rek comme ni ma mënee Lamine Samba ma mënee ko ci salle bi rek lamb la rek lamb la ñi maa leen man lamb la rek Lamine Samba nuyu naa la sama xarit borom oxygène dëgg la borom pigin dëgg la tak da gerte si lii honoré wul lamb lii honoré wul lamb daan de. waaw waxuma day daan de waxuma day koy daan. mais avantage u lamb mooy Siteu. mooy Siteu. léegi nag nga ne Modou Lo jël na avance man avance kan la jël. ndax juum waru ko te ki muy loo juum lu toll ni ay nit mu exploité moo tax combat la bu nga xam attention lu nekk mën na jàpp lu bëri Lac de la ñu jox favori c'est vrai naturel parce que boo xoolee palmarès sax xool adversaire yi mu bëree xool tamit ni bëree ni mu naqaree daane nga xam ne du adversaire bu yomb mais ki nga xam ne mooy Siteu jëlu ko pour daan ndaw nekk ci yoon dem fa nga xam ne mooy jàmm waajal boppam mu jël gaal dem Ndiobior dellu si waat kon kooku tey am na lu mu bëgg am na fu mu teg bëtam kon ko laaj mën na yokk Cheikh Ndiaye. jërëjëf ngeen commentaire El Hadj Malick Thiandoum. le grand réalisateur. gars da ngeen teel a sonn la le grand batteur nuyu naa la ana yàlla bi ana tarkuta bi boobu lan lay représenté drapeau national drapeau drapeau réew moom moom mooy réew Guiers bi nga xamul dara ay taxaw xamul ay taxaw le grand connaisseur. non yow yaay le grand connaisseur. léegi kii mooy Abou Ndour. ñu ñëw sa gannaaw. mais Abou Ndour dama jox alal ba dama jox alal ba. ah dama jox alal ba. bon Ibrahima waaw waaw ñoo ngi restaurant di xaaral entrée ci ci mais lan nga gën sa ci de noko jangale bu ndox brièvement mo amé en fait xam nga gën ci moy liñ wax rek moy la dëgg ci de moy combat pièce mo mo mo la ñu bok moy la nga gën dal na ci de mo mo dafa gën ci bok waye ci de dal na la nga dëgg de moy def mo mo def tuti ci mo def tuti té do té nak xam nga mbeur comme ni ko max begane waxé ci de ci jëlul jëlul avant tout nak nga ko dal naa ne am na loo xam ne acteur bu ko indee su fekkee ne indi na du dox ci tànkam euh, utiliser doole bi utiliser ko ak can mën na see génn mais jàpp naa ne am na loo xam ne bu ko bëree ak Siteu bu bu ko Siteu touché te xam nga mën gi gis nga ñaari ñaari ñaari côté yi doy waar li li li nga war a Siteu ci ay nit buñ buñ ko encouragé un peu rek mën naa buñ buñu mën a merloo mel nga xam ne mooy nag nag mën na ci ci jàkkaar mën na yàq la mën na yàq la jërëjëf jërëjëf naa la seet si à ndeysaan gaayam